Euh, février fu mu jotee rek dina am biir yuy daw am fit yu wàcc. am ñoo xam ne du ñu nalaw du ñu lekk du ñu naan. Mm-hmm. waaye nag ñooñu ñi ma koy mooy jeeg ji gëmul seen bopp. Mm-hmm. ak ñu feesu seen place. Mm-hmm. ndax ñoom la xale yi di yóbbu seen fit yi <laughs> duñ xam lu ñu togg reer. ñu xam lu ñuy reer da ngay gis ku ci musta teg ku ci musta teg reer 9h sax jéem a profité dem teg reer 9h rien que pour <laughs> a daal di toog ba minuit une heure rien que pour retenir ko pour mu toog mun faa reere yooyu yëpp pexeb jigéen la ak ñi ma ko sañee wax itam je pèse bien mes waaye dama ne daal ku mat sa place toog sa ànd wàccoo ko benn yoon ragaloo dara tubaar pay ngay jël donc ñu ñu waat tey ñi ci Saint-Valentin bi di ko waaj xale jigéen yi nga xam ne tamit dañ koo jël yanu ko di wujjeeg jabaru jàmbur yi nga xam ne ñoom takkuñ leen du jumaa du jàkka du église yéen lan la ah ngeen nekk di ritambale defi ay yëf ñooñu tam dinañ ñëw ci ñoom léegi ci kanam waaye balaa ñu koy farafànce di indi lépp di ko teg ci table bi dañu dox régi nank rek ah, xool élément lan la ñu indi tey ànd ak maam Babacar waaw Saint-Valentin moom dégg naa nit ñi di wax ci Saint-Valentin de comme que Saint-Valentin c'est la fête des amoureux quoi li ma gis daal mooy marié nañ ànd ak marié yi dem célibataire yi ànd ak célibataire yi ñu dund ko ah bëgg a forcer dugg te takkaguñ la waaw mais loolu moom sax boo bëggee dégg-dëgg sans dépense ku góor ki nu muy gérer rek mais man li ma gis mooy comme que kee moo nekk si buum kii nekkagul si ah, bu koy def moom da koy def en silence parce que tamit gis naa ne loolu moom ko naree def sax loo xamante ni lu jaadu parce que yow ki nga xamante ne ni moom nga nekkal si farata yaakaar naa sa bisu mbégte bu ñëwee ñu fi fête des amoureux bu ñëwee kooku nga war a nekkal yéen ñaar ngeen ànd dund ko keneen ki rek moom nag xaar nit da nekk nit wala nga nekk dof rek parce que yenn égoïste mënut a weesu yow duggagoo go xëccoo kon boo duggee nooy def keneen ki yow ki nga xam ne ne moo ci soxna mu mu mu lewala doom si fartax yàlla ak sunna defe sagal ko suturaal ko sàng ko defe naa moo gën leneen lu dul loolu soxna yi nga xam ne ni nekkuñ ci buum nañu fexe du ñu duggee si buum te toog te toog mais ay Saint Valentin rek loolu man damay wax rek ne képp koo xam ne nii yow yaa ngi sa soxna fexeel bégal sa soxna njëkk ba pare te am na loo xam ne tamit yow fekkee dugagoo commencé buuxante kon boo duggee kër googu moom day toj kon kooku moom jarul ngay dugg amaana pour ñenn ñi du caageen ne dañu dañ ko ñàkk seen kër am nañ ko seen kër mais nit ki da xam ne peut-être yàlla da koo bind si sa si sa si sa yëg si moom loo xam ne yëgoo ko woon si kër waaye kee nga yëg si moom indi ko si biir kër gi adduna du neex mukk ba mu féete kaw ki fi nekk si kër gi ndax bu ki fi nekk bu bonoon doo ko gis doo gis doo gis góor gi ba bëgg ko waa Saint-Valentin sen valentin bi mu amee est-ce que yàgg na xam nga yàlla moo njëkk jox jigéen cër yàlla moo njëkk màggal jigéen parce que jigéen daayo bi ko yàlla jox jox ko sax góor mais en manière générale dama gis ne mbëggeel c'est tous les jours pour man mbëggeel bés bi yàlla sàkk la du Saint-Valentin rek li ngay def Saint-Valentin mën nga ko def beneen jour le 14 février mën nga ko def le 15 février mën nga le 31 décembre mën nga ko def le 1 mars yow bu dee dafa am da ngay bëgganteeg nit baadoo la mënul parce que da nga koy nat sa bopp bu doon yow lañ njëkk a takk am keneen ku muy nekka da bëgg mu bàyyi la fi dem defal keneen ki muy bëgg takk le maximum ko yow li ñuy wax si ñoo leen jig may jabar du caaxaan sa yaay rek ko ëpp te foofu sax dafa am fu mu yem parce que sa soxna lim la mënal d'une part dafa am lu mën a leneen yaay moo la ko mën leneen li soxna rek moo la ko mënal donc soxna loolu nax sa ba mënul yem ak leneen sooy joxe cadeau sax mooy li ngeen di wax jigéen jigéen yàq jigéen la ba parce que nan ngay gisee ne kii am na jabar am na soxna autant pour moi fête jot même bu dee da bëgg mais bàyyil ba fête bi passé nga ànd ak moom wala mu defal la cadeau boo na defal lu ëpp jabaram ko yow koo xam ne ne yow dina la ñi yeewu ci loolu booy ñi waaw macha allah boo yëpp yeewu nañ dëgg neexul waaye man de waxoon naa ko daaw jéeg jommet wax ko daaw waxaat ko ne yàlla nañ bokk ci xaaji jëm déwén déwénaat di ko waxtaanee waat ndax mooy actualité te réew mi dafa yëngu tubaarkàlla ku ne xam nañ ci lañ toll man de dama ne man Senghor chaque jour Saint-Valentin la ci man ndax bis bu nekk rek mbëggeel la waaye rawatina nag bis bii bisu jàmbur la waaye tam ñun tamit ñeneen ci saraax ni ko kirtim daal di koy téye poñe ko bokk ko yaakaar ñu ñoo ko moom waaye ba tañ tamit na gën a rafet rek man mënuma concevoir à ce que yow jigéen takkaguñ la nga ne da ngay wujjee ki nga xamante ne mu ngi ci néegu sëyam di sëy ngay jéem a lijjantee ka kalangaat waaja tam nekk benn manquant boo xam ne ak ñi ma ko sañe wax ndax am fa mu góor ñu perte ah. ñoom ñooy wàññilu seen jabar ñooy tuutal seen jabar ñooy xeeblu seen jabar ndax yëpp sa jabar weesul nga ne ko fa ñukk ni yàqu na xare di lay ay layu guddeeg layu timis ak layu guddee ñëw ak a reeri nag pour dem géretien retraité pour nekk ca la nga war nekk loolu itam kenn ku ci nekk muy ko kóor ki kenn ku ci nekk li nga béy rek ngay góob kenn ku nekk loo ci munti def rek sa bopp nga ko def nekk li nga xamante ni rafetlu ma mais nag Saint-Valentin comme léegi dañ koo ñun jiix nag këf cadeau yi tamit ci suñu sang yi da ciy baax yenn saa nga daal di xool sa jabar jël lu rafet na ko am da yokk jom ndax waaw góor ci ngooro la bokk day yokk jom parce que kenn ku ci nekk rek yaay yaay sa sa jëkkër moo lay sagal wala yow sa jabar yaay sagal sa jëkkër donc sag boobu suñu sang yi dañuy taal di gën a dimbale rek daal di ñuy jàppale rek maa ngi xaaraale kadal bi kebe ñu ko aali nga xaraa sang mbay oustaz réew mi yëngu na tubaarkalla Saint Valentin gi ku jigi tombaleeti na door na xale yaa ngi def li leen saf di di tambale lan ngay waxati ci loolu duñ ko bàyyi muy ubbi <laughs> di di maanaam di di yàq. affaire waaw non non Oustaz non non Oustaz naxaar naxaar nag parce que am na fi mu toll kuy jënd cadeau Oustaz fii lay ñëw xaaral laaw xaaral rasul <laughs> ah lambal cadeau ñi jaay cadeau na bàyyi xaar Oustaz. <laughs> il faut nga Oustaz xam nga mbëggeel kon bu ñëwal. mbëggeel dafa am solo. Mhm. mbëggeel dafa neex. macha te am na xale bu jigéen boo xam ni ci àddinaam yaakaaru gu ci jëkkër. Mhm. te bëgg na dund mbëggeel. Mhm. Euh, léegi nag kooku faw ñu may ko nag mu bége faw ñu may ko nag mu bokk mm-hmm. bokk bokk maanaam bokk mënta ñàkk mm-hmm. yow ak yow ngeen baal ma mm-hmm. amu ci kenn koo xam ne ni yàlla bindee góor comme Saliou Sall ni mu ko waxee ak ni yàlla bindee lul góor du kenn ko tax a jóg waaw du kenn ko tax a jóg maanaam déglu leen maa xel rek da maa ngi ñëw léegi ci biir loolu dafa am lu ngeen di tiitaroo muy jàpp ni sëy takk ay long-long la takk ay affaire la dem jënd ji ca boutique yéen nañ ma baal ñoom boutique cuuraay euh, tooñu ma leen yooyu noonu lu ci baree bari feet yu mel ni Saint-Valentin mhm. li ñu indil feebar yu ñu teg yi ñu am ci la bokk mhm. moo tax sama benn taarif ma ni woon 31 non Saint-Valentin 31 mbaa 15 août mhm. ñu dajaloo mel ni xar jëm fast food léegi nag ci bis boobu am na xale bu jigéen boo xam ne loolu la am maanaam bis boobu la am amul maanaam amul amul waayam ci lu dul bis boobu te góor ñi itamit yéen da ngeen a foog ni bisu saint ku guddee comme ni ko kiy waxee wala ku reer siwul wala ku tëdd siwul dem nga def ko feneen et pourtant li ñuy dund ci jamonoy Saint-Valentin nekkul ci Saint-Valentin rek lañ ko mën a yow nag yow yam nga am na ñoo xam ne seen jour ci bésu Saint-Valentin bi dañ ko yaakaar ci yëf yëf jàmbur fa laa jëm si moo tax ma ne oustaz bu teelee wax fii lay ñëw mm-hmm. ngoro dafa am léegi man soaay bu su fekkee ni damaa ngoro sama soxna ba takk ko mm-hmm. ma am keneen ku ma takk dama dama la bëgg a wax rek ni la mhm. Saint-Valentin du bisu Saint-Valentin man sooy bu damay guddee mhm. soxna si jàpp ni maa nga ca ndaw sax mhm. damaa ñëw ni ko suur naa reer mu jàpp ne reer naa ca ndaw sa dama wax ni léegi jamono bi maanaam dépassé na foofu xale jigéen ñi li ñuy def ñu ngi koy def avant saint li ñuy toj ñu ngi koy toj avant saint boo seetloo benn góor léegi maanaam nelawatul sax Saint-Valentin jot wala yeneen euh, bés yi. Mhm. ñuy dem di jàdd wala ñuy guddee. Mhm. parce que li ñu war a toj. Mhm. wax dëgg yàlla ëpp na nag Saint-Valentin. waaye nag am na ñoo xam ñàkk jàpp am na ñoo xam ñàkk nañ seen sëy ci jour Saint-Valentin. non loolu moom ak ñàkk fayda la. xam nga tax ñàkk fayda. man dama jàpp ne ci jour ak guddi Saint-Valentin góor mënu ci dund lu mu musul dund ci àddina bu dee ay takkaay dañ ko jour boobu lañ ko koy takkal bu dee mbégte xeetu mbégte jour boobu jàpp jàpp ma ni euh, euh, bég na euh, masul bég lu lu tol noonu kon dama jàpp ni yéen yéen ñii sëy ba ngeen defee ay wujju xale jigéen ci ngeen tardé maanaam xale jigéen yi duñ seen ay wujj dañ leen a takk indi leen ci kër gi da ngeen di nangoo nag gérer affaire bi xale bu góor bi dem gisi ji kam bëgg mhm. bëgganteeg moom bu tombeeg jour Saint Valentin mu jaar fa di siyaare waa kër gi mhm. lu tax ngeen bëgg koo tuddee dafaa jaar di Saint Valentin parce que lépp mais jour Saint jour Saint Valentin daayira day am xadaratu mhm. jumaa day am dëgg la kay ah déglu ma wax la rek gàmmu day am leneen day am réunion day am léegi ci jour eh. boobu noonu da ngaa a xañ xale bu góor bi mu dem ziyaara ji gàmm mu dem def mbaa da ngaa tàggoo gàmm te dara xewagul non na yaa ngi ci indi gàmm tey la Saint Valentin 14 février 14 février ñun man ak Sadio am nañ ci réunion ah waaw ah baax na muutu leen ko gérétien waale rek tubaarkàlla mbaay réew mi yëngu na am yu tubaarkàlla ak xale yi ko nangu tam ak xale yi ko say ndax dafa am jamono ji ñu toll dafa am xale yu xale yu orosu xale yoo xamante bu ñu yàq du tax ñu toog ca man j'ai vu que koo xamante yàq na Saint-Valentin te tey waa ji takk ko parce que ku yàqal nit ñu yàqal la loolu leer looy nekk rek na nekk dëgg ci yow mu naturel ci yow mhm. mais yow rek xëccoo ñoddi woo iri woo ritambale woo ba le jour ji rek nga ne da ngay jël sa jom ji jaay ko ma jooju mu fare ko tamam pour jël yàqalaat yooyu tam am na si eh, te dara jaru ko tamit nag eh. mais jéeg duñ ci puus tamit sa manqué moo ko yóbbee eh, dëgg la gis nga euh, bam mhm. li nga Mm-hmm. li nga war a téye yaa ko war a téye mm-hmm. bu même bu mu wëndeeloo ba wëndeelu gu sonn bu guddee jotee bu guddee jotee fan lay fanaan sa ginnaaw hmm? mm-hmm. bu guddee kan lay kon ni koy waxee ku muy riitambale du yow mën naa génn bu defee feneen bu ñëwee tamit dina ko def mais lu tax ngeen bëgg xalaat ne ku génn da ngaa riitambale am nañ non non non waaw sa nga baal ma bam bi nga baal ma de xoolal baal ma lu tax ngeen bëgg dugal seen xel yi. xam nga lan la yow saa yu génnee riita mbale yow yow yow moom xam nga lan yow boolewul la ci coow li ndax yow. da ngaa jël da nga ni Saint Valentin ay ay xool leneen xale yu jigéen dañoo capable coupable kan def ko. waaw mais sa jëkkër nga xam kan nga nga baax toog jàpp sa ñàmb ni dootuma def dara ñu ni xaaral ma xool son yi bu li muy lijjanti ay bu bul wax loolu bàyyi ma bàyyi toogal bàyyi yow toogal fii Sénégal la. waaw xale yu jigéen dañuy gis la baax. waaw xool la baax ñu di ko xool daal ñu. kii xaaral mais xool taxul mu jëfandikoo la. dara wóoru ci ndax yéen dañ mooy loolu. mooy loolu waaw. baba yaa ngi ni nan jour Saint-Valentin. dañoo am réunion dañoo am réunion benn réunion. Aïda jour Saint-Valentin amul réunion mi ngi fi demoo fenn may ñu loolu ngeen di def. bala nit ñi. bale ni ah, ngeen di wax gis nga maam Bambi jour bu ne ak feetam mhm. boo nebee sa waay mhm. moom mi nga xam ne moo lay bégal mhm. danga doo nangu kenn ni ko ci dëgg mën ngaa génn na ci waaw sooy bu mën nga ma yéen ku génn rek ngeen yaakaar toj na dëkk bi bàyyi leen loolu ñëwal gis nga maam Bambi duma ko doo ko doo ko nangu duma ko nangu doo ko nangu duma ko nangu waaw bu yeboo nga ni saa yow yaa ngi may xaar na da naan dana laa xajal naa le waaw dëgg la dëgg la waaw duma ko nangu ndax doo gis loo xam dafa baax bay bëgg a dee nga lijjanti ko ba am ko ba tee ko keneen ko lijjantee nag kooku noonu lay lijjantee keneen ko baax indi ko ma ko yow moom nga ma yéene waaye amul solo gis nga maam Bambi mm-hmm. euh, jour <laughs> Saint-Valentin ñi nga xam ne mooy xale jigéen ñi nga xam dañuy dem xooli keneen mm-hmm. ni xaar jëkkëru sukaa mi kat mm-hmm. naa ko jëli yàqal sukaa euh, sukaa bu ya bu ñëwee man mer ca wala nga nga may sama defal ma lii damaa mer damaa mer daa fekk mu mu neex ma boo demee ba wënde moom maa ko moom du boo wundeeloo ba tas mm. bam bi di nga dem di nga dem Médina di nga dem Fass di nga mm. dem Colobane guddi bu jotee ci sama ginnaaw ngay ñëw tëdd dëgg la mais dafa am góor ñu manqué ñoo xam ne tam ñoo yebbi seen bopp dafa ñoo jël dépense di la ko jox naan la préparé niwse fu mu chéré ba pare góor ñi ñooy jënd léegi niwse jënd niwse ñooy jënd petit paay jënd yaa gën a xam yooyu noonu si takkuñu la ba pare war a jël dépense boobu jox ko seen jabar ne ko même bu dul dara ñun moomuñ Saint Valentin mais góor kum takkul lu ko jënd leen mais yow la moindre des yi gën a rafet nga daal di jël jënd say doom ay fruits yokk ganaar ya yokk jën dem seeraas jënd añoo defalu ma leen pub def xeetu baax baax ne ma dem ça c'est pour toi cadeau calé ko du genre lu dafa neex day yokk amul mais comprendre nga mm-hmm. mais yow nga dem jël fee benn xale bu jigéen boo xamante ne ni ndeyam a gën a sëy xanaa sa ndey jabar nga dem jël jox ko dépense jox ko argent de poche solal ko ba pare nimisé ba mu la war a solal sax wala mu war a yàq si waaw yow du bàyyi ma kon eh, jabar la yor xanaa eh, kon jabar la yor jabar la kay am na ñoo eh, xam ne boo génne nii fleur yi ñu ngi commencé ak rose di jaay sànq bi may ñëw fi ma paan nii si kaw tali mhm. xale góor am bi la yaa ngi toj mbedd mi te romboo benn jigéen bu jënd gum góor ñee jënd seen jabar lañ ko ñu ma ko sañ a seen jabar seen jabar seen ñu ñu tëddee seen jabar saa réew mi yëngu na tubaarkàlla xale jigéen yaa ngi tàmbale sànni ma ñii ngi rocci ñii ngi def yëf ñii ngi waaj statut yi nag loo dugal ñu ne man lay gaaral fi jëm ah ba pare jël waaw xam nga man de euh, li may njëkk a wax mooy leeral mm-hmm. parce que réunion dañ koo bàyyi dañ koo bàyyi <laughs> Euh, xaw ma kañ lañ ko fi wax. loolu moom. wax dëgg yàlla. dañ ko bàyyi maa ngi yëgal ay daraal ne ko. dañ ko bàyyi. mësta am réunion boo xam ne bii. wax nañ ne day ah, dafay am. loolu. dañ ko la boo xam ne. maanaam bu ko waxee fii ci pénc bi. Euh, ma daanee noppi maandu ci. mën na koo jëmmal. ba teree fi ab réunion bu amul donc réunion amul. ñaareel bi. man tamit damaa xamul kañ la góor ñi commencé. di jàll ci ginnaaw jëkkër jigéen ñi. très bien naan bu boobaa. ñooy jàll seen ginnaaw guddi kii. sama ginnaaw boo ñëwee sama ginnaaw ngay jàll. bu yaboo man loolu. erreur boobu nga xam ne moom la. fayal lambi te jàll sama ginnaaw. Eh, vraiment dox dox dox ma li nga moom. parce que bu dee Boubacar ak jàll ci xam ne warta ne bu yeboo waaw ba boobu nga xam ne moom la su kaabam bi loolu erreur la leneen li. Eh, xam nga non du ma dañ laa xajal parce que eh, àddina noonu la mm. sunu boroom dafa am loo xam ne may nañu ko ñun góor ñi que ni mën nga am ñaar ñett ba ñeent soo ko mënut nga yem ci benn. loolu di loo xamante ni bi lu am solo la mais nag man damay wax ne problème bi du jigéen ñi fii. problème bi góor gu ñàkk jom la. man defe naa ni problème bi lool la. parce que am na loo xam ne bi soo ko mënulut sa jabar. waroo ko defar sab coro. fekkee ne mënuloo sa jabar. coro parce coro. officiel agut maanaam takku góo ba di ko defal yenn yi mais jigéen bu ànd ak moom doo ko defal taxaw yenn yi jigéen bu ànd ak dafa am yoo xam ne boo koy defal ndax jigéen boo koy defal boo sa coro waaw non seulement ëllëg si biir boo ko takkee du respecté sa jabar am na góor ñu bari ñoo xam ne ñooy indi rivalité entre seen aawoo ki ñaareel fekk ne ca doxaan ga la parce que dañuy fexe ba ñaareel bi du respecté aawo waa léegi alaaji bu ñëwaat li ma lay laaj dama ne ndax jigéen bu ngeen nekkee doo ko defal bu ngeen nekkee doo ko defal waaw mais da nga may déglu waxuma la doo ko defal ah, déedéet waxuma la waxuma la loolu mm. mais c'est dafa am yoo xam ne xam nga tey bu ñu demee ba ndaw si mm. di wax naan balaa ngay defal lii sa jabar danga maa war a defal lii ba pare mm. ah loolu moom loolu góor goo xamante ni gii nag reconnaître nangu nga loolu donc ëllëg si biir bu sa kër tasee yawa donc góor ñi nañu xool bu baax bu ñuy labat ni ñuy labatee parce que kenn warta labat ci kër di ñàkkal fayda sa jabar da ca kër ga parce que boo ko ñàkkalee fayda rek mm-hmm. donc dinga gis pare yenn saa yi ñu ne ñaareel bi respecté wut aaw bi. Mhm. fekk waa lan moo tax. Mhm. parce que pare na saa yi euh, waaja ci boppam mooy ñëw naan ko am dof laa yor. ku ñàkk fayda laa yor. Mhm. du nitu dara fii laa xamee lii yaa may dundal. yaa may def lii ndaw si tamit day sentir ni. kee nekk fële ab dof la. léegi nag bu ñu dajee ëllëg problème am. <laughs> te fekk ne yow problème boobu yow góor gi yow yaay problème bi. yaa ngi dégg ah. hmm. tey jii bu sukaa mi am na noo xam ne bu ko Boubacar doon labat bu fekkoon ne bii defoon na ko aana hmm. joxoon na ko aana dina jox cër aana ba ñu respectante di ne du ko ko jox hmm, c'est parce que danaan kat kii euh, euh, ndekete kee du dara day ñëw rek ñu joxanteeg moom dëgg la donc nañu fexe def yi attention mais alaaji waaw yaa tax ma xam lii nag araamul ca biir néeg ba ah. génne ko ci mbedd ci ci ëtt bi la ñuy bañ yaa tax yaa tax ma xam lii ah war ngaa nekk jigéen naan yaa tax ma xam lii. mais ça. <laughs> mais ça dama ne dama ne dama ne bu génnul nekk ba oustaz oustaz dana ci ñëw. waaw bu génnul nekk ba kay garaaw. li nga may def li nga may ah? mais ça bu génnul nekk ba kay baax son yi bu même bu la ko waxee. waaw bu génnul nekk ba baax na euh, li garaaw mooy génn ko yóbbu ko ca penc ma. waaw tey son yi bu tey boo takkoon ñaareel nga toog ak moom. waaye tam nag ku jommi ku ne nag bu la neexee wax. moom laay wax mais tamit ñu ci biir néeg bi. waaw ku jommi ku ne ci néeg bi. waaw war ngaa sagal sa nawle rek war ngaa siggi na ko daan na ko jërëjëf yàlla ak yow parce que fii bu toon ak yàlla ak diw fama bi ni amati rab bi tamit dëgg la ndax lépp link la ak link la mais mam bam bi nga xamal boo joomee kay neen joomi na bam bi mam tey la nga xamal nit ki muy sa ñaareel hmm. wala sa ñaareel ñëw am na mu def ak yow muy loo xam ne ci neex ci loo xam ne ñaareel bu ci am dara du ko yéen aaw ba pare tey yow yow mi nga xam ne yow yaa ko yow yaa yaa sa jëkkër yéen a ko sekk hmm. amoo droit toog ci biti waa biti gi laay wax waaw moom biti bi la wax. biti bi la wax mais néeg ba kay wax dëgg xam naa loolu moom parenthèse bu am solo oustaz nit ñoo ndax xam naa a wax ndax tamit loolu moom yow boo duggee ci néeg ba rek yóbbu ci charia islam <laughs> a mën a ñëw oustaz xam naa ne balaa ngaa tëj ci loolu mm. di ci daal di indil mm. parce que tamit man damaa yaakaar ne xam nga sama maam danaan wax dawal mbége sax métier la mm-hmm. euh, oustaz ngelaw lu mu rëy rëy rëy fayut làmp ku weddi laajal sondal déggoo ma de góor gu nekk ñoom ñii ay benn jabar lañu war mënagu ñoo xam ni saf moo tax ay ay ñoom sani asan moo ñuy wax asan xamu nga asan bu leen waxee ñoom maîtriser guñ ndax ñoom kenn ay ay loo bu leen mais bu ñu yeggee ci ay ay loo yow oustaz xam nga jàng alquran yamale ci ay soxna ba ala kulli aali mënul nekk munul nekk yonent bi alayhi salaatu salaam muy suñu roylu waay moo ñu gën yow ñaari ñaari galoo nga maa ngi nuyu sama soxna yi sama jabar yi au passage ak sama njëkk bi moom ci boobu mañ ko laajee soxna yi kan nga ci gën a bëgg dana xam naa ne daal xol yaay saa ci nekk donc ki ki gën a ki gën a jonge ak ki gën a mbokk euh, mokk ak ki gën a mën a sëy hmm? waaye nag oustaz nag kooku nag kenn du ko yemaleeg leen nañu waxante dëgg tamit dëgg nee waaw bambi li a wax rek mooy góor responsable la war a hmm. li dëgg la hmm. yeneen bi salaa salaam dajale na soxna yëpp. Mhm. daa dugg ci néegam te ñu jàkkaarloog suñu borom wax ak moom. Mhm. ni ko ñoom ñëpp a baax. Mhm. ay xol bi de moom moo ko yaa ma bind. ay saatine ay saatine. wallaay ndeysaan xol bi moom moo ko nag ay saatine. waaw la la charia wax ni amuloo droit publier ko. waaw waaw. mais boo jomee ci néeg bi su la neexee wax. voilà boo jomee ci néeg bi wax ci néeg bi. néeg bi ci la ñuy xamee jonge góor. jonge góor boo nekk soxla ci biir néeg bi. Ah, boo nekk moom ci biir néeg bi waaw léegi oustaz man xissa boobu ngay wax noonu man am na benn question moo ci bëggoon xam naa bëgg naa ko cee laaj ah waaw sa sa sa borom kër mhm. seen biir néeg bu leen neex waxante ci lu baax mhm. yàqul dara mhm. mais doonoon responsable yow góor gi ba aawo bi bu mu yeb ñaareel bi ñaareel bi bu mu yeb aawo bi ci aada dañ wax naan la am ñoo xam ne ay tàppet lañu yow su ko takkum jabar sa soxna nga koy takk yow nga bàyyi ba takk soxna si ba pare door ko wax aaw hmm. loolu du dignité hmm. soxna bu loolu du personnalité góor dëgg balaa muy takk dina fexe bàyyi soxnaam doon ay xarit hmm. maa la wax lii day fekk doon responsable boo moomul sa baat soxna bu li tax mag ñi di ko tere laa lay wax ah, souvent boo waxee sa aawa ni ko damay takki diw takk mag ñi tax ñu koy tere. ci saa si bis bu ko ku jigéen ki waxee yaayam. ñoom dinañ préparer loo xam ni. boo xefee sëy ba am lu ko yàq. maa la ko wax wala ñu takk la xala. ñu takk la xala mënul ñàkk xola yooyu yëpp dañ la koy créer. fii nag ah day réew mi la. yooyu dañ koy def. takk la xale fii indi la problème fee. def ay détails waaye lu dul yàlla nag. neen la neen da ngay songo songo songo ba foog ni. yaaca ne sunu borom ni ah def nga ñu seen pexe waaye pexe yi du jub. daf ci am loo xam ne daal ci Saint-Valentin. man dama naan tooñ sax mais lii ci yow laa ko xamee lislaam da koo bañ. ci biir néeg lii ci yow laa ko xamee. ci lii ci yow laa ko xamee. lislaam da koy bañ li ma xam ne ma koo xam. waaw xam nga sa soxna. waaw sa soxna lu ngeen mën ci bëggalante def ko. waaw boo jommee ci moom itam. billaahi waxal ba jàkkaarloog moom ni ko damaa jommi. waaw ah, c'est affaire. ah wax dëgg na la moom nga ne ko jommal nga ne. dëgg la c'est son affaire. waaw dëgg affaire bee c'est affaire. wallaay dëgg affaire lu mën a xew daal euh, euh, bambi. Saint-Valentin daal li ma ci xam. Mhm. mooy jàppal ni bis yëpp. Mhm. ku respecté sa jabar. Mhm. doo bàyyi ba la 14 février nga doon ko wax ni ko tey laa nopp. déedéet. doo bàyyi ba 14 février nga doon ko jox cadeau am na ku ko wax sànq mm-hmm. dafa naa changé bu la mm-hmm. bis yi jiitu sax da ngaa war a bégal sa jabar ngeen ànd promené ji mm-hmm. bu fekkee le 14 février kase ci ngay sol lu rouge mu sol lu noir dèjà problème ngoo couleur yooyu benn baaxu ci maanaam couleur yooyu nekkul couleur yooyu dalal xel dalul xel. noir dafa lëndëm. boo xafee mu tëj sa wërsëg. rouge dansé la boo xafee mu indi la ngeen boo xam doo am foo jëm. Mm. moo tax tubaab chaque jour day loo xam ni. leer na ko ni xoola nu muy defee tubaab lu muy yàqee lislaam la. Mm. saa su ne da ciy dox. Mm. li am solo daal banque bi. Mm-hmm. mooy Saint-Valentin nay trois cent soixante cinq jours yi. Mm-hmm. trois cent soixante cinq jours yi. Mm-hmm. sa jabar xool ko ba mu neex la nga ni ko téye l'oxygène dama vie. ah dëgg la eh, araamul de. déedéet waaw monsieur Dieng. xool ma jigéen ni ko téye l'oxygène de ma bi yaa ngi dégg kee xool ba mu neex ko moom it mu proverbe bu mu neex. ah je t'aime à l'infini. déggal lool na dootu moo gisaat beneen jigéen ba bëgg ko. ay wax la sooy bu neex na. mais nag saa di tukkal jamono tey lii ngay wax. Mm-hmm. góor gi ko dul wax. Ah? góor góor gi ko dul wax. Eh, ah? non ah? non li ci gën a garaaw mooy lii oustaz wax góor gu ko dul wax. dañuy foog ni sa yoo de. mu ngoog. dañuy foog ni sëyoo. te pourtant mais dafa am góor ñu rëy am nañu ko dul waaw léegi loolu ngeen tuddee rëy. mais dafa am góor ñoo xam dañu ñu rëy baam bi yeboo ñu rëy lu garaaw laa leen nettali koo xam ne ñetti jabar la. liggéey ba sonn wàcc. dëgg la yaa ngi yaa ngi am. maa lay delloo sa kàddu koo xam ne ñetti ay yeru ay xale. waaw maam mi ñetti soxna. waaw ñetti soxna yow too. boo paree daanaka ma suñu jëkkër tajul fenn. baal ma pare ah? déggu leen ma de. waaw. nee na ñetti soxna yow dégg naa la de. dégg nga li ma wax dégg naa li nga wax koo xam ne ñetti soxna la am. Mm-hmm. ay tax góor ñu soof ñooñu. Ah, góor ñi nga xam duñu bëggal seen soxna. Ah. góor ñi nga xam duñu jox plaisir seen soxna. seen soxna dañuy dem ba dañ leen di ragal bu ñuy wax nii la ñuy def. ñetti soxna yee toog man ma toog te bu ñu génnee na toj mbedd bi. waaw mais Oustaz Oustaz. yow su ma juumul fàttewu ma ko fee ca kii ba xam naa gars yi dañuy génne émission. waaw waaw. da nga waxoon ne mag ñi dañoo yaroon seen soxna yi ba bu ñu duggee. Mhm. bu ñu nee tëll tekk la ñuy def. waaw rangaloo. waaw maanaam dañoo yaroon seen soxna yi. waaw mag ñi léegi foofu laay tontoo kii ci li mu wax bu njëkk mag ñi. Mhm. liñ amee sang yi fi nekk tey mhm. borom kër yi bu ñu ma saana ñëw li ñuy njëkk a def dem uti am ndox ñëw raxas sànki ba mu set ni ko nijaay ba tey mu ngi am ba tey mi ngi am xaaral xaaral waaw nijaay mas sa coono loolu amatul man de bilaay tele laa toog ba tey mi ngi am ba tey mi ngi am man de tele laa toog loo wax fi léegi mooy man de tele laa toog man de sama maa ngi koy def tele laa toog di wax billaahi wallaay taalaay képp njóge aali njaxaraas ak mbay ak may dégg yaa ngi raxas tànk maa ngi koy dund maa ngi koy def ba fi ma toog nii di wax ak yow ba ànd seconde ah, man damay laaj xoolal man damay sax sang xanaa jooy nga tele laa toog arrêté ajuma ah, lañ nekk waaw dara nekku ci dara nekku ci loolu yëpp charia dagana la lépp loo xamante ne bànneex la ci sa ci sa li sa soxna bëgg wala sa borom kër laa joxe jigéen borom këram bu génnee àdduna sax charia nee na ko dem sangi ah tamit koo xam ne ba mu génnee àdduna nañ la koo sanguloo buy dund kay waxatuñ ko nee na la sax booy sangu set sa loxo jot sa ginnaaw ne la ko sa borom kër ragal. Eh, mambam bi waaw macha allah. chari ne na booy sangu set. sa ginnaaw sa ñaari loxo yi duñ laalante. ne la ko sa borom kër ragal. kon xanaa lépp dagan na tubaarkàlla macha allah mais dafa am ñenn góor ñi nga xamante ne si que dañoo rëy. Mhm. siiri nañoo wax seen jabar je t'aime. wala naa la wala masa coono wala gàddu yëf daal di indi. Mhm. kon nag loolu ak ñi ma ko sañ wax itam ngeen bàyyi ci xel xam ne mhm. Saint-Valentin at ba at la naam moomuñu ko suñu ko bëgg nañ ko ko yaru nañ ko daw ak na rafet yéen góor ñi ak bañ a wax euh, dee leen jox seen soxna yi cadeau chaque jour mbëggeel la chaque jour bés la mhm. chaque jour nopp la man mënuma concevoir nopp at ba at loolu triche la yéen góor ñi bàyyi seen jabatam di leen nelaw lool leen jox ay somnifère jox leen ay sirop ñuy nelaw dem di ko rogo jeeru di géretien arrêté leen réew mi dafa toj dafa avance nit foo nekk ak foo dugg nit ñi xam nañ mhm. donc nañ defaraat toogaay reculer pour mieux mhm. euh, di am mbégte nag sañu te fi ma génne sama bopp di nuy sama yaa boutique sama sponsor bés nee na ma fi mu toll nii reprendre aat jomet euh, bi mhm. bambi loo sol ci tele bi maa la koy jox kon nag alhamdulilah mhm. coono déchargé na ma kebe ñogo ñun ñaar ñëpp kon jënd gi dina xaw a wàññeeku saata bi déchargé naa la ci jox Uh-huh. donc macha allah ñoo ma génne fii di leen wax merci beaucoup di gërëm sama bopp uh-huh. Ibra Fall uh, sama tailleur bu mag bi Cheikh yéen ñëpp nuyu naa leen gërëm leen di leen jox dig daje ba beneen vendre incha allah di waxaale at mi tey bu ngeen ñu seetaanee jàpp leen ne ajjuma ji mooy continuer jomme uh-huh. dootu dawati dimanche ajjuma lay ñëw li duuf ci nag bi xaju ci ndimbaay waaye sax naa seet dama ci neex li ma sax daal di koy rëtëmbal ba beneen dimanche macha allah beneen ajjuma macha allah macha allah Mame Bambi uh,